ay guro fii la daan toog ba kër gi neex jàppa jees fii la daan toog di daan doole ah ay guro ma ki ma nekkal dafa bona bona bona bon soxor li tax mu soxor mooy weeru koor weeru jaamu yàlla mhm. boo nekkee nit koo xam ne day dem di jaay ci mbedd yi ñu naan ko ñu ñuy dàq ñu yor table yi kay nga war koo jox mu lekk ak naan ñett fa nag ngi lekk ma naanu déet subaana ku may wallu bismilaay maa nga am sëñ eh. nekk foofu ci góor yow dimbali ma de jógal fii kat. waaw dimbali ma lu xew. café am na waaw. ah yow tamit tàngoor ko loolu kenn ko woon. tàngoor ko. Baye Goro sonn na Baye Goro. bébé Aïcha yow seen fii bari na coow dem fi xew. waa du gis nga ay meeting yu dul jeex. amul réeru koor ñu war a arrêté amul dara. moo tax gis nga koñ bi. ah weeru koor daal moom soxla nañ ci ak tekkaaral ndax nit ñi mën a noppalu bu baax a baax. merci beaucoup ñiy julli julli ñiy wér di wér di naa def nag. maa ngi fi. mbaa yaa ngi góorgóorlu bu baax. waaw maa ngi góorgóorlu baax. Hmm. maa ngi góorgóorlu bu baax. Hmm. ani sëñ bi. sëñ bi sëñ bi dafa génn. ah daa génn moom de nee na day dem lijjanti ji xaw ma. Hmm. balaa maa dee li ma ci gën a rey mooy <laughs> ku xamul xamul xamul xamul boo xam ne xaw ma kañ la ñuy xam. Ah, bis bu sottee rek doom ngeen xam. <laughs> ànd naa jéeg de. ah ñoo ànd dem. man doomu maa fi des. baa yaa ngi koy def ni sa yaay rek. waaw waaw waaw. Hmm. maa ngi koy def comme sama yaay comme sama mag bu ma ko lay ak naaj. Hmm. waaw bu ma ñëwee toog ci wetam. Hmm. ñu def ndogu waxtaan ka fee. wax dëgg fa yàlla instant bii ñu ngi si jàmm. loolu daal lañ soxla. bu la kenn duggal sa bopp ay affaire yu wujje wujje du dara lu dul bokk jëkkër ndax soo xoolee ni fa nga juddoo ak fa jeeg juddoo bokkul fa seen sëriñ bi juddoo bokkul yàlla boole leen di leen tenkam tenkam ba ngeen bokk benn kër bokk benn jëkkër kon nga xamante ni lépp yàlla moom affaire bi dina àdduna bu mu yàgg yàgg yàgg bu ma dégg ko ci yow bu ma ko mës a dégg ci yoo nga doon sa yaay nga doon sa mag nga doon sa wétt nga doon sa xarit bul xajal sa diggante kenn ak moom seen diggante bu ci xajal kenn loolu nag lañ la te loo ci mën a góorgóorlu amul benn problème bàjjël waaw li ngeen ma yebee woon ba léegi maa ci bu soobee yàlla duma bàyyi sama loxo benn yoon lépp lu ma war ci lu rafet ak ci lu baax dinaa ko def ba ba ba nga kontaan yàlla weeru koor yi baa yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax maa hmm, yaa ngi nafar baa fàtte woon jàng mi ci sëy bi rek teg sori naa sax ah, romb allah macha allah alhamdulilah allah doom raw nga say bàjjam raw nga nga say baay raw nga ñëpp bis boo koy def rek nañ ko yëg ba lu ñu am ñu ñëw barkeelu ci ndax ñaan bi topp si nit lam ni way am barke ko yàlla rek moo xam bu mag a ci yem man nag tey li ma indi woon mooy sama kii njël li ndax boobu ba léegi jëlagoo njël waaw waaw mais sama sama nijaay Papichou mu ngi doon wax chaque mu chaque daal mu xëy mu jéem a bëma rek pour ma togg mais dama koy xamal ne jëlaguma njël yow xam nga def bu may jël njël dama lay xaar dama ñëw ñu def ndox daan taa ba léegi boo demee fekk fa fekk fekk. njël jël tànk yóbbu ko. jaarale la fa ñu jaarale say morom. ndax loo gis rek dafa am yoon. la dëgg la looloo gënoon a yokk tey suñu tànk yi. comme nañ koor dañuy bàyyi bu ñu waree ñu waree naa fi mu ko ko comme waaj ko. bu ñu waree incha allah nga jël njël dégg nga. dëgg kay def ma ko fi dugg ci biir nga tëdd. loolu moom dina jéem a tëdd nga noppalu tuuti. ba ah, xaaral ma ci biir demal ci biir. bu kenn seetlu may gardien bi man moom may gardien bi. bàyyi ma noonu la jeeg day gàttal. <laughs> noonu laay def yeggal ci biir dégg nga tal ventilo bi. koor bi moom jàpp na ma daal yi sax fa laa koy bàyyi. waaw bàyyi ko fi taalal ventilo bi dégg nga bàjjen. d'accord incha allah dafa tàng dafa tàng. bàyyi guro fii la daan toog ba kër gi neex jàppa jël fii la daan toog di daan doole Oh, la, la, la. wala xaw la ma su bokkum ma la heure boo fi ñëwee rek def ci tojaange dama ma yàlla musal ci yow. boo dee daanaka sax damay wax boo tàmm ko doo xam yàlla. Baye Guro Baye Guro. ñaata naa la ko wax yow yow yow mii. ba nga sëy sëy ci kër gi ba tey ak waxuma ba nga sëy sëy ci kër gi ba tey kawar mu ful moomu te jekk yu tooyal kër nag mooy kër yoo xam ne day def ay xar fa xuur fa waaw te kër gii gi fii sëy nekk aaw wax dëgg yàlla si yu nii ba xar fa xuur fa yow mi waaw ah, loolu damaa ñu nekkoon foo la mën a naan la yow ñëw kër gu rëy fekk ko mu yor aaw téye ko ay loxo yu ah kër gi dinaa set lépp loo fi ñor di cabaale ko dàq mais heure bi heure xoolal nit ndaw bi ah ba pare man wax ko la li ci def mooy yéen gis fii da gis góor bu baax bu yor aawoo séeg moom këram doo ci mën a gis geer ñaareel dugg ci kër yooyu yëpp ñaareel yi moom sëriñ yi ñoom la ñuy liggéeyee ak ñetteel yeeg ñeenteel yeeg juróom bi mais aawoo gën a ci kër wér gi yaram la. Hmm, yow ngeen fay yow ngay mbete ne de yuuxu yuuxu ci tool dàq na fi ci waaye yow dugg yow noppi bu doon fekkee nekk bi te la yow. su ma la nee da nga ñuy abal rek da nga ñuy sa problème yow saytaane nga waay yaa naa fekk yaa rambaaj. ñaare. eh. la mën maa la ëpp doole maa la loo maa la ral dama lay dóor ba nga tëdd ci kër laa ilaaha illa la yow kat ngay dóor da naan yaa ma lon. yow waaye xasoo ma. yow loolu defoo ma ko yow loolu moo la yow doo toll magum jëmm bu toll na yow. nga toog fii ne da ngay a ak ay jigéen. gis nga soxna Thiaba laay bàyyi bu mu ñëw ci kër gi mu dóor la ba nga. xam nga lan la man la gëlëm bu ñu rocc génn taxawal taxawal sonn na